di borom bi subhaanahu wa taala mboolem nit yàlla yi defal jaamam ñu ci xéewal ak tawfiq yàlla ñu ko yàlla defal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ak morom ma <coughs> dañuy far bàkkaar yi dox ci diggante bi yàlla ñu ci yàlla defal ginnaaw loolu ñu fas yéene indi benn tomb ginnaaw ba ñu sante mbokk yi nga xam ne jamono ji yëpp ñoo nekkoon ci jot ligi muy sëriñ Mor Lo ak sëriñ Massaer Cissé yàlla leen yàlla fay aw yiw tomb bi ñu bëgg a waxtaane nag di tomb bi nga xam ne moo ñu fi dajale nga xam ne jamono ju nekk warees na koy waxtaane warees na ndax daye bu mu am muy wàccuwaay bu mu am mooy julli mbokk yu julli jamono ju nekk warees na koy nafar jamono ju nekk warees na koy waxtaane jamono ju nekk warees na koy xoolaat ba xam ni ñu koy defee ne la wala déet ndax day bi mu am wàccuwaay bi mu am benn ci jaamu yàlla yi amu ko ginnaaw boo xasee dugg ci lislaam muy wax baatu seede yi ponk lislaam yi juróom la wax baatu seede yi muy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ba ca jiitu léegi tege mooy taxawal julli julli yi juróom ak la mu làmboo lépp léegi tege moom mooy natt asaka léegi tege moom mooy woor weeru koor ba ca mooy xaj màkk boo ko mënee julli mii nag mooy keno bi nga xam ne moo gën a rëy moo ëpp daraja moo ëpp wàcc-wàcc ci mboolem yi ci des moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni julli mooy kenol diine mooy kenol yi ku ko taxawal taxawal nga diine ku ko mabbu mabbu nga diine waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li tàqale jullit bi ak kéef yéefar bi mooy julli buy julli jullit la bu julliwul leneen la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñun bañ nañ ko ba wax ñun wolof sax lool lañ ko loolu lañ ko tuddee jullit baat bi mi ngi jóge ci jullikat jullikat dañ koy dagg naan jullit waaye jullikat mooy cosaanul baat bi ñu koy faral di misaale rek mi ngi mel ne sëriñ sayekatu njariñ mooy cosaanul baat bi ñu ne ba daan saye njariñ ba ci naan ñu naan sa njariñ ba ci yàgg ñu naan sëriñ ba ci yàgg sax ñu naan sëñ ñu rek dagg nga ni kon olof yàgg na ci loolu bari na ci baat olof loolu lu mel ne bàyyi bu jigéen mooy bàjjan bàyyi bu jigéen mooy bàjjan ku bokk sa bàyyi ndey ak bàyyi war ñu bokk ndey war ñu bokk bàyyi bàyyi bu jigéen la ba ci yàgg ñu naan bàyyi jigéen ba ci yàgg ñu naan ba jigéen ba ci yàgg ñu naan bàjjan loolu olof da koo bari le kon julli katit cosaanul baat cosaanul julli jullit mooy jullikat ponk yii ci des xoola koor ñaata la ñëw ci at mi benn yoon wenn weer la doon ci at weer woowu mën nga caa am ngànt weer woowu mën nga caa am ngànt bañ a julli bañ a woor moo xam wéradi la gu la dal nga xam ne mënoo koo boole koor wala màggat la wala nàmpal la wala wala yu baree bari am na ñoo xam ne sax koor dootu leen war di wàcc ba faw ndax wérdi gi ñu am laajul xiif lu mat ñetti ñetti waxtu ca koor gi faaw mu ëpp ñetti waxtu kon l'islam wàcce leen ko ne leen bu ngeen mënee na ngeen lelle manam na ngeen fexe ba bis bu set ngeen jox nit lu suur nit lu suur nit nga ne ko mënuma ko amuma ko mu la wàcc na asaka moom am na ñoo xam ne danañ dund ba faat duñ mas joxe asaka dañuy jël asaka kay yeeyoo jël asaka waaye asaka du leen war ba faw ci ci ponk lislaam la moo ne de ponk la waaye am na ñoo xam ne ba bañuy faatu asaka du len war ndax amuñu luñ joxe asaka amuñu nisab ben lu mat asaka wala bu ko amé du fi fekkante ren ba dewen ci baba asaka du la war haj makka di ponk juromel bi haj makka am na ñoo xam dañuy dund ba faatu len war ndax mënuñu ko haj makka dañu dund ba faatu len war ndax li tax haj makka li dajé haj makka war ko ci walu wër ci walu katan ci walu man-manu alal ci dem ak dik ak li nga fay bayyi lolu bar ni ñoo xam lu mënuñ ko kon ak makka lu war julli nag mooy loo xam ne moom du la wàcc mu fii yaa ngi ànd ak sam xel mbokk yi mboolem yee nga xam ne dañ la ca dogal ngànt dogalee la ko si julli bu ñu ko doon dogal kenn ñu nekk ca front ba di saxaabatu kiram radiyallaahu alayhim salaatul xawf di ñëw julli ragal yéefari dal seen kaw ba demee surtout ni saa borom bi mi ngi ko ca leeral muy kuréel gii nañu taxaw yonente bi sallallaahu alayhi wa jiite leen bu doon tisbaar ci taxaw mu jiite leen ñaari rakka ñu toog taaye àggale ñoom seen julli yonent bi saasam toog moom xaar ñi ca des kuréel ba ca des ñëw mu jiite leen ñaari rakkaa ñu ñax ñëpp dugg mu jiite leen buy jiite ñii ñaari rakkaa ñoo ca des ña nga jàkkaarloog armée ba ngir bañ ku leen bett buñ sëlmalee ba ñooñu ñëw taxaw ñu doogu ñëw taxaw ci ginnaaw yoon sa mu àggale ñaar rakkaam bu sëlmalee ñoom ñu àggale seen ñaar rakkaam ñu nekk ci digg xare ba bu doon ñooñu man ñu leen am ngeen gànt dem leen ba ëllëg ngeen doog a julli wala dem leen ba xeex bi jeex ngeen doog a julli julli bu dee nee nga mënuma taxaw da la taxawal julli nga ne ko man mënuma taxaw julli am ma taxaw mo la taxaw kon nga ne ko mënuma wéeru taxaw la mun mun la togal nga ne ko mënuma tok mun la kon togal ci wéeru nga ne ko mënuma tok ci boppam la mënul mun la nday jor nga ne ko mënuma ko mun la teddel nga ne ko mënuma ko mun la manam noko mané rek nga ne ko man rukon mënuma ko mënuma sëgg rukon mënuma siggi rukon mun la del dundu sa bopp man nga yëngal sa bopp nga ko waaw bu ne ko del dégg mu ne ko mënumaa yëngal bopp bi mo del xef bo bo taré ba saar bi jeex ak fatiha ak saar bi jeex nga xef wane ne yaa rukon wane ne moy lan moy kon julit lo wacc bukk julit nak mbokk yi dara gi mu am top nit ki top nit ki top nit ki fii ak mi and ak xelam ñun mom luñu dal julit li ñuy njëkk a bër julli la ñuy njëkk a ku am loxoom di met mu bër julit ku bopam di met mu bër julit ku siburu bër julit lu way dal nit rek mu yaakaar mom julit mu moom wëratu ko légui fële la koy teg te sunu sang ba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu day ak wéradéem moom waxtu julli ci bokk ak wéradéem waxtu julli ci bokk lu mu masaan wéradi wéradi bu waxtu julli jotee taaqa maanaam quwwa ruhiyya gi day daal di nott mu ne bërit dem julli ji maanaam mel ne ku dara dara bu woon dara bu xasee dégg nodd gi day mel ne ku dara dara bu woon bari lool ci nit yàlla ñoo xam ne lañu def moo tax julli moomu nag mata jàngat xam wàcc waay bi mu am yi bokk na ci lii mandargaal wàcc waay bi am mooy lan la rendez-vous bu la yàlla jox la mag mu toll ni yàlla subhanahu wa taala nga xam ne moo bind lépp bind la dayoom bi mu am wàcc wàccuwaay bi mu am darage ji mu am may la occasion ci boppam juróomi yoon ci bis bi waxuma la juróomi yoon ci weer wi de waxuma la juróomi yoon ci at mi ku ci président ne woon rek naa la jox weer wu dee ma jox la ma jox la rendez bala ngaa dem da koy waajal moo tax xudu zinatakum inda kulli masjid bala ngaa dem ci jàkka ja waajal ko waajal waajal ci wàllu xol waajal ci wàllu teewlu lépp lu aaju waajal rek julli ji da booy dem ci da ngay xam ne yàlla ngay dajeel yàlla yàlla subhanahu wa taala saa booy dajee ko rendi boo fonk bu nekk da nga ko waajal waajtaay moom laaj yëpp doo fàtte dara nag ku ñu doon dajee dajee koñaas koo xam ne da nga am ay aajo ci moom lépp loo nar a fàtte da koy bind da nga koy bind yóbbaale def ko ci këyit bokk ko ngir lan ngir bañ koo fàtte waaye nag ka bind ñëpp lépp nekk ci loxoom moo la jox occasion nga dajee ak moom ca saa boo ko ñaanee mu dal lay may moo tax jullit jullit bi xam ne occasion boobu wër ko rate ci lépp lekk nekk ci loxoom nga jàkkaarloog moom dafa am benn jaamkatu yàlla bu mag boo xam ne dafa nekk ci xoromu kaaba gi am benn buuru ci buuru jullit yi ku ko wokk gis ko rek ni mel xam ne kii jaamkatu yàlla mu jàpp ci mbubbam ne ko man may diw mu dal yëngal boppam ne ko waaw mu ne ko damaa bëggoon bu dee am nga jenn xaajo rek nga wax ma ko mu ne ko jàkkaarloo borom néeg bii di laaj aajo kenn ku dul borom néeg bi du ma ko def waaw ma bàyyi ko mu bàyyi ko ba nga xam ne jën nañu xorom bi ñu ko topp di ko topp ba ñu génn xorom bi nee ma jàppaat ci ne ko man maay ki la doon wax ne damaa yittewoo aajo joo am rek nga wax ma ko ma fajal la ko mu ne ko ndax aajo yi àdduna la wala aajo yi àllaaxira ne ko aajo yi àdduna du ko diis sama borom ñu bind ndax moo ne moo ma ko yoral ba noppi bu dee aajo àllaaxira ne man ma cee fajal dara nga wax ma man li ma yittewoo aljanna laa yittewoo mu ne ko déet aljanna man xamaguma ci àllaaxira dara mu ne ko nag bàyyi ma ma dem mooy lan mooy teewlu gi ngay teewlu soo su jootee teg sa jë ci suuf ñaanal say soxla ñaanal say soxla bul bul mënu làkk arab bu làkk arab de waxal ay wolof yu leer naññi waxal ay wolof boo demee ca motal sooy xarit ca sarxa bi ma ngi la koy leeral nan la saa bu nit ki su jootee sa kuuñ maanaam buy ñaan yàlla du jéggi ne faw ay arab ndax man ngaa jéem a jàng ak ñaanu en arab far diko yak nang koy waxe fardu nii ndax ndax kat ben yak ben araf dana soppi maana ci soppi gu doy war ci misal inna allah la yuhib dama ko joxe faral jox misal inna allah la yuhibbul mu'tadin mu yàlla bëggul ñu bon ñi bone bone al muhtadin bone muhtadin nak mo yàlla bëggul ñu bax ci ben harf nga soppi mu'tadin ak muhtadin yow mi nga xamne nak mëno mënoo maxaarij al huruf man la jurul jural la leneen kon nga war cee bàyyi xel bu baaxa baax ci na julli moom occasion la yow sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala kon bul ko yàkkamti mbokk yi bul ko yàkkamti julli du luñu yàkkamti bul ko def lu diis sa bopp mel ni boo julli doo am jàmm déedéet ñaari anamu yàkkamti moo am yàkkamti koo def mooy lan mooy yàkkamtee dajeeg sa borom yëg-yëg bi ngay am ngir yàkkamti koo def bokkut ak yàkkamtee julli ba génn ci naa julli ba génn ci man kay alhamdulilah man kay ginnaaw julli naa rek baax na bu mu nekk lu diis sa bopp ne nekk lu mbégte moo xam ne da ngay jàkkaarloog sa borom subhanahu wa taala ngir def ko yëg-yëg boobu la ci ab jàmbar am bu ko jëmul nag jamono ju ne war nay seetal seetal seetal boppam di ko jéem a togg nag dañ koy togg nag loolu dañ koy entraîner rek teewlu ji dañ koy entraîner di ko jéem a def di ko def di ko def bu mujj yàgg lépp nekk ci yow lépp nekk ci yow ñi ngi wax koo xam ne cib xare la la la la la la la la tànkam bi lañ coroon tànk bi ba mu des tuuti ñu ne koo dagg ñu ñemewul ñu dagg ko waaye ba mu toogee julli doom ji dañ nañ bàyyi bu julli ba muy julli buy julli moom danañ ko dagg ca ko yëg buy julli danañ ko dagg ca du ko yëg ndax la ni muy teewloo diggante ma borom subhanahu wa la kon loolu lu ñuy lu ñuy tàggatu la waaye jullit bu nekk war na ciy bàyyi xel kon bul yàkkamti sa julli mbokk yi audience ku dem audience palais dañuy mujj maanaam protocole bi day ubbi porte bi di wax ne kat heure bi jeex na nga naan ko may ma tuuti may ma deux minutes waa kon nga jàkkaarloo yàlla yàkkamti mu jeex yow booyul ko xamoo sayru kon sa yoon newu ji di su jóot mel ne ginaar guy cof déedéet mbokk yi incha allah taala sunu waxtaan wii di ñëw bu fi yàlla bàyyee danañ ko jëmee ci maanaam sifa maanaam melokaan wi ñu war a jullee ci rukon ci sigg rukon sëgg su jóot sigg su jóot mi nga xam ne moom moo ca war ànd ak leer laa la ci farata yi nga xam ne yoo xam ne boo ko bàyyee sa julli gi da yàqu ca ñu baree bari dañ koy bàyyi ca duñ ko yëg yàlla ñu ca musal yàlla ñu yàlla defal tawféex yi ñu jullee na mu bëggee yàlla yàlla tàggat suñuy xol tàggat suñuy cër tàggat suñuy roox ba jamono yu ñuy julli ñu di ko teewlu na nga ko bëggee ci lépp lu luñ ci def yàlla na ko xool ci ak matam ci ak mbaaxam ci bañ ko xool suñu doy deeg suñu defin nangul ñu ko ci yërmandeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu